del déglu del xool Feeling Dakar ayo naaw la cat sumulu bàcc yi Xaas tey nag macha allah sama xale yi yëngal jamono xale yi nga xam ne tabaar fakal la macha allah tere nañu seeni noon nelaw ci jamono yi sumbulu bàcc li chéri Ablaye Diop xaas Mbacco Ndiaye chéri Baye Niass eyako sama rakk yi lañu takk may leen ay million may leen ay jamaa tabaar fakal la macha allah may leen ay wurus kay tey li ma yëkkati mooy sama ñaareel ku VIP yi muy sumbulu bàcc li chéri Ablaye Diop xaas e eh, Mbacu Njaay chéri Baye Ñas Ñas Kumba Abdalaay Samba Coro Faal ak Samba Ñas xam nga bala maa débat ci yéen lu may wax xool tàngoon na ca yeetaa yeetaa xool tàngoon na ca yiitaa yiitaa xool seddaat na guy sumbulu mbaaco njaay xool seddaat na guy macha laaw la cat laaw la bët laaw la ma làmmin laaw la ma xel laaw la ma njuuj laaw la ma njaaj laaw la ma njaraj laaw la ma cëll laaw la ma tëlëm laaw la ma tilim laaw la ma mëñën laaw la bët bu aay bu dul gis lu baax te du xool lu baax laaw la ma gémmiñ gu mbuuraan gu dul wax lu baax di wax lu ñaaw di wax lu iñaan di wax lu soxor day lekk mburu fagadaga ak dugub bu forox laaw la ma xel mu aay xalaat lu bon ci sama rakk baax yi sumbulu baax eh, nag question te ku ma ci la may mille dollars cinq cent mille eh du ma waxantu répondre nag macha allah bu ànd ak maanaa laa ci soxla képp ko ma répondre naan da nga may wax quoi que ce soit lu ma bëggut a dégg bu ma la vocalee laaj ma ñi may vocal fan yi du ñu nettali vocal bi waaw dañ koy jël rek toogu waale moom daal di weetal hii mbaaye yaa ñaaw làmmiñ waaw bu jotee dañ koy def dama am question bëgg ngeen tontuma ci tabaar fakal la te ngeen tontu damaa bëgg ngeen tontoo ma xel te bañ maa tontoo xol waaw te ñi am xel nag laay laaj sama question bi laajuma ko dofi laajuma ko ñi wérul ñi laajuma ko ñi kacakay ni laajuma ko ñi matadi ñi laajuma ko manka kunkaay laajuma ko ñi perti ñi ndax man dama jaaxle sàngoo ni biram jigéen dama bëgg ngeen répondre ma ci sama question bi nit ku ñuul borom der bu ñuul rawatina sénégalais li tax ñu soxor ah tontu leen ma ku ma tontu ma may la 1000 dollars ndax man euh, man daal man daal man daal man daal man daal sàngoo biram jigéen daal I don't understand ma ñëw nag ci sumbulu sumbulu bàcc li chéri Ablaye Diop xaas damaa bëgg tabaar fakal la macha allah sama message bii nga joxal ma ko sa jëkkër ji waaw yow nag duma la souhaité duma la ne joyeux mariage duma ne sumbul sumbul félicitation duma la ne dara duma la ne sumbulu dama lay ñaanal ci sa sëy bi ndax yow sumbulu bàcc li yaa ñaanal sa bopp xam nga li tax yaa ñaanal sa bopp sumbulu ba lu waay yëkkati jëmale ko ci sa kaw rek mbaa pexe bu nit di pexe jëmale ko ci sa kaw rek yàlla da koy galgal waaw yàlla da koy galgal xam nga lu tax sa xol bu rafet loolu la la yàlla ñaar dama remarqué ci yow dara te loolu boo ko amee doo sonn ko sumbulu bàcc la damaa am ci yow yow Soumboulou Bathily xaw ma ndax nit ñaa ngi koy remarqué ci ñoom dama bëgg ngeen déglu ma de ubbi seen nopp yi déglu ma ma wax leen waaw bàcc li dafa am loo xam ne man dama ko remarqué ci moom te loolu mooy li ko téye mooy li ko aar dama bëgg ngeen xool ku bëgg gis li may wax duggal ci vidéo Soumboulou Bathily nga di ko seetaan benn par benn Soumboulou dafa am li nga xam ne bu ko nit amee muy ñeent yii jarul ngay tiit jarul ngay ragal jarul wut sëriñ jarul ngay wut ñaan jarul ngay muslu ci ay noon jarul ngay muslu ci pexe noon ak pexe seytaane sumbu dafa am imaan muy benn am tawxiit am yaqiin am ixsaan ci digganteem ak boroomam sumbulu loo ko wax dala naan yàlla yàlla yàlla baax na yàlla baax na yàlla yàlla du la ne sëriñ diw daa baax na du la ne sëriñ nàngam du la ne diw nàngam yàlla rek yàlla rek yàlla rek yàlla rek sumb ko dangaa jël sa lépp bàcc li jébbal yàlla suñu borom bu tëdd bi ci li ma gis yàlla nag moo xam ne ci biir xol yi waaye li ma gis te yàlla firndeel na ko man loolu laay seede ndax yàlla dafa doon buur bu baax boo xam ne sumbulu fi nga teg sa loxo ba falax jarul ngay wut téere jarul ngay wut ay xaaw jarul ngay wut ay bëj gis nga boo jëlee yàlla buur bi nga xam ne mooy allahu waxat allahu samat rabbi zul jalaale wal ikraam nga jël sa lépp jébbale ko rawatina nga nekk ci population boo xam ne ak xeet woo xam ne dafa mel ni xeetu Sénégal muy xeet woo xam ne bëgguñu ko dem bëgguñu ko avancé bëgguñu ku baax bëgguñu ko xàppi bëgguñu ko kontaan bëgguñu ko tekki bëgguñu ku nekk ci jàmm bëgguñu ku ñu bëgguñu nga gis la ngay jëm kaw mbaa ngay jëm kanam Sénégal da réew moo xam ne lépp lu fa waay def du crime boo fa reyee nit du crime boo fa violee xale du crime boo fa sàccee du crime boo naanee sàngara du crime xam nga lan moo fay crime boo tekkee loolu mooy crime biir senegal soo avancé loolu crime la ci ñoom soo amee lu baax loolu crime la soo jëmee kaw loolu crime la soo jëmee kanam loolu kirim la ci ñoom dañ la naan du fi amee waaye boo jëlee buur bu mel ni rabbi sama wa maa fil ard jël ko teg ko sa digganteeg ñoom toujours ca kaw ca kanam nga jëm toujours yàlla dana lay defar seeni xol yi di dagg ñu di la gis ngay avancé yàlla di indi lii moo tax xola fiñ la toroxalee ci 2020 yi jéexagul yàlla indi la xéewal bu rëy yàlla siggil la sa mulu teral la sargal la yëkkati la valoriser valoriser la xaw ma sama làmmiñ bee tax mënuma koo wax yàlla defal la teraanga boo xam ne sumbulu bàcc li sumbulu yëpp si boobu ñëpp corona te duñu dem ñu leen di annoncé ci télé yi teraamisin desatul ci bitig yi chloroquine desatul ci pharmacie ñokket desatul ci jaayikaayu boutique yi lépp loo xam ne nit bu mën na koo naan rek mu dindi sa feebar mbaa sibbiru jeex na ci Sénégal ndax lépp noonu si noonu sumbulu bàcc yi li yee ko naan seeni xol yi di mbaacu njaay ñëw nag doggati leen nday baju eh, di ah <laughs> eh, yaako yaako mbaacu njaay nag dafa ñëw rayati noon yi rayati sénégalais yi nappaaje leen dox ci seen xaw naan njapaj këpp ba cë cëlla la teer tëppax tëppax tëppax ngëcc lii la mbaacu njaay def moom moom jarul sax may débat ci moom lu bari ndax lépp lu naqari woon ay mbokkam naqari ko ak lépp loo xam ne ay noonam dañ ko ko doon pexeel mbaa ñu def ko ko ci lu ñaaw tey jii xoolal siggi na ci seen biir kaw yàlla sagal na ko yàlla moo mën a xeexal nit dëkkee alxuraanu karim gis nga yàlla buur bu tedd bi nga xam ne mooy def lu ko neex te kenn sañu ko ne pourquoi te ku ko ne pourquoi yàlla boo ko nee pour pourquoi nga defal lii diw ak lu tax nga may kii nangam nga lay effacé mbaa mu bàyyi la fi ngay dund xola muy teral ka ngay bañ mu teral ko di ko may jàmm di ko may xéewal di ko may teraanga yow mu bàyyi la fi ngay sonn di iñaan sa xol bi di dagg ngay gis teraangay kooku sa xol bi di naan coxot coxot coxot coxot coxot coxot ba ni mu tëdd dañ xëy dee ñu naan lu ko rey pourtant bari ki démb fii la fi toogoon moo waral dee yu gaaw yi tabaar fakal la allah mbaa ci njaay man jurum jéem a yàq tabarfakalla macha allah doon ko jéem a toroxal loolu def foog ne dañ ko ci yàqal yàlla da ko ci yëkkati eh maa sant Mansour Icon man génnewul woon Icon ba sosal ma ne dama doon def mariage su góor jigéen Sénégal kon tey bi maa nga Sénégal di lekk dugub Mansour yow mi ma génnaloon Icon ba ne noonu da nga pour yàqal ma wala bu jóg pour toroxal ma Mansour maa la sant sant boo xam ne bu ma sant te yàlla buur bu baax bi bu ma gërëmee yàlla suñu borom bu tedd bi nga xam ne lu mu mës defar ci kaw suuf lee ma ci dàqal muy seppi gin ma seppi Amérique indi ma ci dëkk bu riis bu am maanaa bii di dëkk jàmm jéeg dëkku salaam jéeg dëkku feebar faju dëkku xiif lekk dëkku diwu leer dëkk nelaw yandoor dëkku noo stress dëkku happiness dëkku liberté bii ba pare di ma teral maa surjee maa la sant dinaa la may cinq millions dix mille dollars bu subaa damay dem ca banque ba génne xaalis pour jëndi or dinaa génne dix mille dollars cinq millions may la ko jël ci sama caq yi may sa jabar ay Mansour boo ma def woon ni heure bi maa ngi toog Sénégal bokk ca sonn bokk ca ña nga xam ne dañoo xiif heure bi kon maa nga toog Sénégal bokk ca ñi nga xam ne dañoo mar heure bi maa nga toog Sénégal di def immigré clandestin jëni di ma lekk di ma coppat may toog ci àngal yi yor benn tubéy di ko sol deux semaines yor benn peeru dàll juróom benn weer yor benn tiset mu bënn caleçon ba fëq ca ginnaaw ay yaa ko ay Mansour Mansour yaa ma teral Mansour Dieng Akon yaa ma sagal yow mi bind lii yow mi ma susal sa suura wii ba yàlla indi ma ci dëkk bii may fër falaale tabaraka allah macha allah ndekkeew ma mburu faga daga añeewuma sombi réereewuma boolu dof macha allah laaw la cat tabar fakkal la maasuur yaa baax mbaaco njaay nag la def la ma maasuur def loolu lañ ko def mu mbaaco njaay la ma maasuur ikoon def foog ne daf may toroxal loolu la ko noonam def foog ne da koy toroxal mbaaco joxe fa takk ña xamul woon mbaaco xam nañu mbaaco milliards yaa ngi dikk ci mbaaco jamaa yaa ngi dikk ci mbaaco nit ñi di ko tere ba yàlla indil ko bàyyi ñas <laughs> tëggi tëggi jigi ta tëggi tëdde tëggi mbaaca jaay rëtëxi tëddëre të tëggi tëgge séeri mbaayi nges ay ay aya kon waxi mbaaco duma ci sori xale bi tontu na ay noonam ma bëgg ma si Salima Ndiaye mi ci fi ay jaaxa si sama demel bàyyil so noonu la ñuy wax seen xol yi dina dakk del déglu del xool di ko yóbbante ci jëkkëram ju baax ju yaru jooju ab Ablaye Diop xaas mhm. sa jëkkër ju baax ju yaru jooju nga xam ne laaw la cat boo ko xoolee ci tele bi rek xam ne nit ku baax la boo ko xoolee ci télé bi rek xam ne eh man wóoruma ci sa jëkkër dara soxlawuma sa daray jëkkër yow sama rakk nga musuma laa woo ne la sumb lu may ma nàngam sama buri bàcc laa daan àndal muy sama xarit di sama lépp nit ma xam ci fulla xam ko fayda xam ko ci personnalité nga doonoon sama rakk ba may ko ci kër ju baaxam ji tabaarfakal la macha allah laaw la ca aji bi de màkk te lebul baas yàlla boole ma ak yow ngay sama rakk fa ma sama tegoon nga teg ma fa kon soxlaw ma ci yow dara lu xol moo ma yëngal ci yow sa jëkkër it soxlaw ma ci moom dara ndax tabaar fakal la macha allah mën naa ne ah mbaaye day nit ñi bu ko seetaane mën nañu dafa bëgg Ablaye Diop xaas ñaanal ko man du ma ñaanlu waaw man du ma fekk sama moroomu doomu aadama naan ko ñaanal ma déedéet kon wóoruma sa jëkkër tabaar fakal la macha allah li may wax dama koy wax te yàlla tax ndax koo xam ne ku mel ni mbaaye nga xam ne man du ma tettaru man du ma sunguf man du ma sangatu du ma reenu du ma daara mi ngi nii xam nga ku ma yaakaar man bokkuma nit ñi nga xam ne diw laa yaakaar àddina ak àllaaxira su ko defee seen yaakaar di tas ndax Sénégal looloo fa am diw la ñu yaakaar àddina ak àllaaxira moo tax dëkk ba gis ñu fa dara lu avancé ay seretu mbaam la ñuy dawal xale yi jakarta la ñuy dawal tabarfakal la ak délivré ak wër di fecc ak usa ne ci tiktok bi di baara mbay liggéeyuñu xëyuñu gontuwuñu te ko wax ñu ne diw la ñu yaakaar te ñoo ñu yaakaar ñoom ñooy avancé ndax lépp loo topp lu dul yàlla képp koy jaamu ku yàlla yaa koy jox la muy dundee waaw gis nga doomu aadama lépp loo jaamu lu dul yàlla képp koo topp bari yàlla topp ko moom mënul ci yow dara du la jox dara au contraire yow yaay jël di ko jox muy dundee su dee ay xamb yoo teg yaay jënd soow di ko ko jox moom xàmb ya du la jox soow su dee ay kilifa ñoo xam ne da leen di sukkalaka di leen raamal gëm leen yow yaay liggéey jël sa alal di leen ko jox soo feebaree mënu laa faj soo deewee mënu laa dugal àjjana tabar fakal la macha allah. soo amee naqar soo xiifee du la jox nga lekk moom mooy nekk donkaasi gi yow nekk ci jotaay teraanga yow nga nekk ci walaakaan ak coono kon kuy yaakaar ak kuy gëm ak kuy bëgg gëmal yàlla man nag yàlla moom laa gëm moom laa yaakaar moom laa jox sama àddina jox ko sama àllaaxira sama xarit boobu xoola ni ma def cay waaw kon nag sumbulu yóbbante bii ma la yóbbante ci sa jëkkër ju baax jooju waxaluma ko ko pour bëgg ci moom dara ndax laaw la te lépp lu ma war a am ci moom rek yàlla defal na ma ko fii amee jii ma macha allah damay wax ci moom ndax damaa gis ci moom dal moom Ablaye Diop Xaas damaa gis ci moom yiw moom Ablaye Diop Xaas dama gis ci moom réglé moom Ablaye Diop Xaas damaa gis ci moom tabe moom Ablaye Diop Xaas dama gis ci moom ci ku am comportement bu dugg am comportement boo xam ne nit ku baax noonu lay mel leneen loo xam ne nag lu wax ci moom allahu ahlam moom moo xam ak ñuy ñëw ci moom ak ña koy seet Ablaye mën naa mënul dafa def nangam def de loolu mënuma ci wax ndax nekkuma fa jëflantewu ma ak moom jëflantewu ma ak moom te gisuma it ku jëflanteeg moom kon nag lii may wax ne waxal ko sa jëkkër du lenn lu dul dama bëgg nga ne ko honey my baby my darling my love nga ne ko ah nga ne ko doxal sa dox bu leen tontu bu leen faale bu leen lijjanti parce que fi mu ne nii soxlawuñu ab laaj yow xaas yow sumbulu yow la ñu bëgg a yàqal te yow yàqal la yombul ndax yàlla moo la teg loxo te yàlla ku mu teg loxo tabaar la macha allah boo koy pexeel tabaar fakal la yaa wax baat boo xam ne yow sumbulu xamoo sax baat bi da nga wax ci théâtre nga ni yàlla bu rëddee nga effacé mu rëdd nga effacé mu rëddaat nga effacé beneen yoon dalay effacé ba pare soog a rëdd yow sumbulu looloo la dal looloo la dal sumbulu yàlla dafa effacé sa noonu yàpp ba pare nag soog laa rëddal yow bu Ablaye Diop xaas ñëwul woon ak ay milliards bu Ablaye Diop xaas ñëwul woon sagal la sagal gi mu la sagal yàlla day yónne ëpp Ablaye Diop xaas alal ëpp ko teraanga gën koo mën a sagal jigéen mu sagal la ndax yow dangaa jël yàlla def ko muy sa lépp nga am ñeent yi may wax imaan tawxiid yaqiin ak ihsaan ci sunu borom bu tedd bi moo tax xoola tabaar fakal la ca kaw ca kanam sa jëkkër nag ne ko mu liggéey liggéeyam conseil boobu laa koy jox na toppatoo soxlaam bu mu faale sénégalais yi bu muy dem ci internet yi naan day tontu quoi que ak naan maa ngi jéggalu xam nga sénégalais lu bañ baal ma waa yooyu la bëgg waa maa ngi tuub maa ngi jéggalu baal ma lii nii la demee lii nii la nàngam patati patata sàmbata njaay xar ma fii la jaaroon di dawal vélo béy ba jaar ci pétin yi nag baa nga toog di dawal mbége yooyu la ñu bëgg su ko defee ñu ne aha kii nag jàpp nañ ko te bala ñuy am jàmm dañ lay faya faya fay ba nga jëm suuf sa jëkkër nag bu mu leen toppatoo bu mu leen lijjanti lu mu def nag moom la concerné lu mu deful moom la concerné waaye amul lu muy génn di leen leeralal na def ni man man de ku taxaw ne ma mbaaye sénégalais yi nee nañ koo jigéen ma ne maa tey yaa wax naa nga maa tey mbaa yaa def nangam maa tay su ma fi nekkoon naan su ma fi nekkoon naan ñi ñi mi ñi ñi waa comme artistes yi ni ñuy def naan waa man nu ma mel yéen Sénégalais yi yéen ma ko def nu ma mel defu leen ma nangam man maa ñëw ci dëkk bi am jom di liggéey di daan sama doole am fulla am fayda am personnel dama ñëwee gis leen ni ngeen nekk ci réew mi di gita ngaasake i ñaa na ko soxorante dama leen fi bàyyi dem dëkk Las Vegas liggéey yor sama teranga di ànd ak Gambien yi di ànd ak nag sénégalais yu baax yi ndax Atlanta yi may yeewoo ay sénégalais yu baax fi ne yu yiw yu nangoo liggéey yu am personnalité am valeur artistes yi taxaw naan lu ma mel yéen a ma ko mel ni ma mel nangam man kooku mbaaye bokk ci ndax bés bu fi artiste taxawee gërëm leen wax leen lu baax ba ngeen foog ne ba ñu foog ne euh, ak nañ ko ca kaw bu juumee rek ngeen ne tey ngeen di tukki la àddina ngeen gis sénégalais yi jël ko ak ko nan ko yaa nekk fii yaa fi ne ñun yow la ñuy wër yow la ñuy bëgg may leen ko tuuti bés bu juumee mbaa mu wax leen lu leen neexul ndax sénégalais bëgguñu dégg dëgg boo leen waxee lu leen naqari mbaa nga def lu leen naqari loo xam ne bëgguñu koo dégg loo xam ne du loo xam ne da leen di nax ndax ñun dañoo bëgg nga leen di nax di leen jay soo ko deful mbaa waxoo lu leen neex dinañu wàcc asamaan si sa kaw yow suur boobu dee sax lay gënoon da ngay tiit naan est-ce que du man maa taxawal fii Sénégalais naan lañ maa bëgg noonu la ñu mel bëgguñu kenn kilifa diine yeeg sëriñ yi ñu taxaw naan lañ dañu leen bëgg bëgguñu leen dañoo bëgg lu yomb rek ndax ku tax taxaw ne la boo dee ma dugal la ajjana boo jaamu yàlla bul julli bul woor del njaaloo del mooy del naan sàngara defal lu la neex boo deewee yow daal dee ma jox ci xaalis bi nga am boo sàccee sax jox ma loo rayal nit màndil defal lu la neex yow daal li boo amee kilifa goo xam ne wala sëriñ boo xam ne dala naan li yàlla ak alxuraan beeg yonent bi digle bu ci def dara bu ko faale lépp lu mu tere def ci waaye loo ci munti am dee ma indil dee ma jox dee ma ci teral bu yo ëllëgee yo ma xiyaam ma defaral la sa àddina dugal la ajjana loolu ku la ko wax ah, ak a neex <laughs> ku la ko wax da koy daw dugg ci ba mu saf sàpp tabar la loolu mooy réalité en Afrique loolu mooy réalité en Sénégal kon yow sumbulu neen sa jëkkër bu mu leen faale fi na nag jugal nañ ko sénégalais soxor na soxor koo xam ne bés bu la jugalee te te dëgëroo ba mel ni mbaaya boo strongul tabar fakàlla macha allah soo soo dëgërul te soo deful ay doon keer tabar fakàlla macha allah dañu lay stressé ba pare dinañ la pexeel pexe boo xam ne doo bëgg sax dund dee moo la koy gënal ndax démb damaa seetaan benn interview boo xam ne moo yëngal sama yaram bi xam nga bañ la takkee ba tey génn ma ngay ceeb ba tey génn ndax damaa kontaan te xam ne yàllaa la teral ñii di wax ak sëriñ seeg ñu ñu ñaaw ñu seen kanam yi mel ni ay boolu tegleeg ñaawaay ñu ñu ñëpp li ñu wax lépp xoola ni lay jaar ndax yow yàllaa la tànnal jëkkër yàllaa takk sa sëy bi yàllaa lay aara sa sëy bi waaye dama seetaan interview bi démb sa jëkkër ñu koy interview jiim ko loo xam ne dafa toog di ko miin boo xoolee Ablaye Diop Xaas ci boppam rek dañuy gis ci moom tristesse gis ci moom naqar gis ci moom stress boo xam ne wute naa keroog ba mu lay gis sa keroog sa ceeb ga na Ablaye Diop Xaas sañsee rafet di reeree ju neex ja kontaan xàppi boo ko xoolee ak boo xoolee vidéo bi mu def démb ci Sénégal di leeral di expliquer nga gis tristesse bi gis ni kii noonu jóg nañ pour faagaagal ko te bala ñuy am jàmm rek ci mim réew ci Sénégal rek dinañ ko faagaagal te yàlla na ko yàlla suturaal yàlla taxaw ko soo ko xoolee da xam ni kii kontaan loolu moo ma yëngal man ni sama jëkkëru rakk gi kat xaaral ma jóg def vidéo tabar fa kàlla macha allah waaye man aw ma seen jot <laughs> eyaa eh, ko sumb nag maa ngi lay ñaanal damay dem léegi ca banque ba débloqué ji xaalis ndax booy dem Las Vegas di fekk ji milliardaire ba mu géer da nga war a jënd ay caq yu bees jënd ay jamaa yu bees tabarfakal la loolu moo tax waaye dama ne damay dugg si félicité sama rakk ji moom mbaaco nga xam ne wax ngay bari rek waaye lu baax rek ngeen di am yal na leen yàlla taxaw yàlla sàmm leen te yal na yàlla sàmm sa jëkkër ji Ablaye Diop xaas yal na la yàlla musal ci cat musal la ci làmmiñ ak bët musal la ci xel mu aaye paqat mbegaandoog ndondog buy fële noon bu ñuul bu soxor xol bu ñuul kukk mu iñaan iñetti iñaan yi ñu xaali xañe bëggul ku baax bëggul ko dem bëggul ko tekki bëggul ko am dara bëggul ko kontaan bëggul ko xam ne ñëpp nga koy dugg loolu dong moo tax ñu jóg ci sa kaw waaye yal na la yàlla dugal ci niiru arasam yi te sutural la yal na la yàlla dugal ci niiru suufu kursiyoom bi sàng la malaan suturaam bi aaral la boppam yaag sumbulu sa jabar ju baax ji ba yàlla bu say noon bi lii ñuy pexe nar koo jëmale ci sa kaw yàlla na ko yàlla fànq këpp ko seen kaw ndax Sénégal a demee noonu soo amee xaalis mbaa nga tekki mbaa nit ñi di tudd yàgg ngaa nekk ci dëkk bi kenn mësulaa waxal lu ñaaw kenn mësulaa xas waaye gis nañ ni takk nga sumbulu ñi ñaa lay coow nit ñi bëgg la ñëpp jëbaliwul si la rek foog jéem laa jax liñ naan du ma dem te doo dem looloo am senegaal bu ñu dem te doo dem ñoom fi mu ne yoonu dañ leen ne yoonu dem a ngi nii yoonu tekkee ngi nii yoonu am a ngi nii waaye bii yoon mooy yoon boo xam ne ñi nga jot a ñi jot am ba pare te nga xam ne fële lañ jëlee ñu nga fee ñoom ñu bàyyi yoonu am ba jaar ca ñi nga xam ne ñoo am ba pare di leen daldal looloo am waaw bëgguñu kenn am bëgguñu kenn tekki bëgguñu kenn nekk ci jàmm waaye nag loo ci gis ñu nga nee sonn xale yaa ngi liggéey ñu ngi jël gaal yi di dem te ku mën a jël gaal jëlal gaal dem Sénégal yàqu na dootul baax lekk dootu fa am naan amatu fa nit ñi sonn nañu xiif nañu ku feebar doo faju ku xiif doo lekk ku mar doo naan liggéey amul senegal amul dara te nit ñaa ngay jur di teg xale ya dañoo war a màgg te fi mu ne fi jota ne amuñu liggéey kon ñooñu bu ñu màggee dëkk ba day gën di metti tabaar la macha allah kon yow toppatool sa soxla bañ leen a lijjanti nga bañ leen a lijjanti bañ leen toppatoo te di leen moytu nag ndax soxla nañu iñaan nañu suñ la naree lëjal nga jël sa jabar nga tukki àddina yaatu na te foo ne yërmande yàllaa nga fa tabaar la macha allah defal ni man nga def sa voyage sans retour comme Mbaye voyage sans retour. ñu lay gis di la jéggi ci réseaux sociaux yi di la gis ci internet bi seeni xool di dagg nga kuraa leen def leen nii loolooy jàmm de Sénégal boo fa génnee bul ñibbi seeti ndax iñaan nañu soxor nañu moodu moodu yaa ngi ni dañoo liggéey bay bëgg a dee lu ñu am sénégalais lekk ko te buñ leen bëggee xas-xas leen moodu moodu yaa ngi nii tabar fakàlla macha allah lii ñu am ci dëkku tubaab bi ak dëkku naari tabar fakàlla waxuma sa dëkku naari ndax ñoom xam nañu ni ñu dëkku naar yi ñoom xam nañ ni sénégalais yi bëggante wuñu nit ñu ñun ñu bëggante wuñu loolu moo tax ku fa dem ñu toroxal la ndax di nam la gisee la lay awalee waaye dëkku tubaab yi nga xam ne yàlla daa def ci ñoom yërmande képp kuy africain mbaa ngay nit ku ñuul mbaa ngay sénégalais xam nga ni dund bi doomu aadama soxla ak jàmm ji doomu aadama soxla tranquillité ak la ak teraange di doomu aadama soxla pour dundee ko ci kaw suuf te yàlla wërsëgal ko ci dëkku tubaab bi nga koy fekk ci dëkku nit ñu weex ñi nga koy fekk kon nag ku mën a dem demal Sénégal waxoon naa leen ko dee gën di metti ndax nit ñi dañuy gën di soxor nit ñi dañuy gën di iñaan nit ñi dañuy gën di bañante nit ñi dañuy gën di defante lu ñaaw ku fay jaabante nag ak a dem mbaa nga dëkk fa lu la fa dal yaa xam mbaa ya nag merci beaucoup bye jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar.